leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara xeraw lu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara bu ma tàngam lu bu ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki di tàngal nu sant soxna jaara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyoo fii ci Porokhane ci màggal gi nga xam ne moom la ñuy waajal te suba rek dox suñu diggante tey jii di àllarba ñu jëm nag fii nga xam ne moo di teen bi nga xam ne moo di teen soxna jaara bi nga xam ne teen bu sell boobu nga xam ne mboolem ñiy màggal si li ëpp ci nit ñi danañ ñëw fii ñu wut fi am ndox ngir yóbbu ko seeni kër ngir barkeeloo ko ndax yëg na ne ndoxum barkeeloo la moo xamante ni tubarfakalla dina ànd ak yéen nag dugg ci biir bi ak ñi nga xam ne ñooy siyaare si ak ñiy wut si ndox nan la ñuy ñëwee ci béréb bi nga xam ne moo di teen bi kon ñu ànd ak sunu technicien sunu caméraman dugg ci teen bi xoolal leen lan moo fi xew fas yéene dara du leen ump ci màggal gi ci ànd ak yéen. jaambur waaloo ngi wal di gental waalo ngir naan ci ku am jaaraamam yaa ka sa jaaraamaam jaama maste ma feeru naa foofu laa jógee ñu boole ñu ci ñi nga xam ni dañoo nekk ci jëwri ñu liggéey bi fii ci teen bi loolu mooy sunu taxawaay ci jëmbi teen bi ñu nekk nii. teen bi loolu mën a fàttali ci ndox mi ak ngëneelu ndox ndox mi nan lañ ko war a jëriñoo. waaw teen bi de ngëneelam boo ko delluwaatee ci cosaan la moom danga xam ne ngëneelam bari na ndax bi nga xamee ni teen bi euh, ñi nga ki tax ñu di ko fekk si fii fekk si na fi teen bi booba tey ba mu dikkee ci la doon liggéeyal boromam doon ci liggéeyalal ab sëriñam Mamour Anta Sali waaye ku ne xam na ni dëkk bi dafa gentoon bi mu gentee tamit teen bi am nañu nett li ni soxna Fatou Dia taw Serigne Touba moo joxoon Serigne Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta digal mu sekkati ko ginnaaw bi loola bi nga xamee ni Cheikh Cheikh Mamadou Moustapha mu Serigne Bassirou Euh, sëñ Basiru jóge na fi mu di ko mu wóotu ko fi di woote màggal gi ci anam gi ci leen defaraat lii ngeen gis ci la organisation bi tàmbalee bassin yi nekk ci biir ci la tàmbalee mu àndoon kook ña nga xam ni moom lay yoon ci ay daaraam barke bi fu ko waay takk rek passé na ko ndax kenn ku nekk ci ñun yàgg nañ fee ñëw man ren la fi sama fukki benn ci jëmi teen bi waaye nit ku ne nga fi fekk waaye nit ku ne dina am lu mu la diis waaye bu ngeen gisante waate ëllëg dana la xamal ni la loola faju na. léegi ndox mi nit ñi ni koy wutee surtout jigéen ñi ni ñuy ñëwee lan nga leen di dénk pour bu ñu lan lañ koy ci wormaale ndox mi. waaw leen di dénk moom ci ndox mi mooy ndoxam barkeelu la barkeelu nag moo ko posant rek ñooy moom moom mu tuur mu bëri moom ñoo ci bokk abaate bee day rey biir jariñ waaye nit ki tamit bu ko jëlee ndox mi bu koy barkeeloo day xool pas-pasu ki tax ñuy barkeeloo. pas-pas ki tax ñuy barkeel nag bul jàpp rek ne ndox mi de ndox moom boo ko naanee sa aajo yëpp faju na déedéet da koy naan ba pare di góorgóorlu góorgóorlu gi nag passé wul dara lu ni ni nga xam ne ci la soxna si nekkoon donte mënoo ko waaye nga nekk si ndax si sal da nga xam ne ñetti nit bu kenn ki daw kenn ki nekk ci digg bi di waaxu kenn ki nekk ci ginnaaw di dox ki nekk ci digg bi de mën naa bañ a jot kay daw waaye ki ci moom doo jot <laughs> waaw waaw nuy soli aw sa fu nu soom nu jël ba yaa tax jigéen ñi soo ay mal ba nuy soli aw sa fu nu soom nu jaar fa dañ daa gaar di woddoy soppee góor ñi pii ji ñooy roof roppi yaa suturaal awre yi dindi joote mbakkee nga mel na ndar jabaa ngay juuti laam fa gétti ndar taam sindooni yoon ngo ka waa Tuuba ga dek ci ndoodi mbokk yi jërë ngeen jëf gis ngeen nu duggoon ci teen bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo doon wut si ndox di ñëw di barkeelu fii nga xam ne moo di poroxaan ci teenu soxna jaara bi nga xam ne sëriñ Moustapha Bassirou moom moo ko yeesalaat wax nañ ne ki nga xam ne moo di sëriñ Modou Mamoun Mbacké ibnu borom Daaru Salaam moom moo si woon teen bi ba teen bi mboolem nit ñi ñi ngi joge ci gox yu fasanti ko ñëw di barkeelu ci ndox mi nga xam ne moo di ndoxam poroxaan ndax poroxaan xam ngeen ne ñaari béréb yi gën a rëy moo di si ak fii nga xam ne soxna si daf fi daan roote di fi def am ndox moo xamante ni daf ci daan waajale waxtu juróom yi nga xam ne daf ko daan julli mooy soxna jaaratullahi mariama gis ngeen lin jëlee jël nañ ci biir teen bi ñu xamal nu lan mooy teen bi gis ngeen ñi nga xam ne ñoo doon wut ndox ak ñi nga xam ne ñoo doon jukki ñu joxaat leen daje ci yeneen i bërëb wasalaamaaleykum wa rahmatullah yaakaar sa dooma jommal jinne jaaraam am jaara saarful jiini jox na la jukkoy rabit yéemu jum nga jubal tey jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe baleer jolli te jikko yi mooy bëgg lim amoo bon ñu ko amoon yaroo leen daawu la jëw janni daawu la jëw